nañ nag une campagne de sensibilisation sur la migration irrégulière qui constitue un fléau vraiment bi nga xamante ne sonal na askan wi ba ñi nga xamante ñom ñoy ñi ñi gouvernement du Sénégal jël si ay dispositions yu yu ama am solo ñun itam ñu nekk agence bo maintenir ne rôle moy fexé ba ndaw ñi ni ñi waaye fexe aussi ni ñuy tàggatee ndaw ñi ba mun a dugg ci marché de l'emploi. accompagnement bi mooy d'abord dalal leen buñ ñu leen dalalee ba pare daal di leen enrôler si suñuy ay plateforme nous avons une plateforme sur le marché de l'emploi qu'on appelle SIM bi ñuy wax SIM SIM boobu nag buñ ñu leen ci xasee ba enrôler dañ leen di déglu bu ñu paree ñu orienter leen parce que jeune bu nekk ak besoin am ñii dañuy soxla formation ni dañuy soxla accompagnement ni dañuy soxla financement Légui nak li ñuy def moy à travers suñ plateforme bobu non, ñi nga xamantene soxla nañ financement ñu orienter leen ci structure bi nga xamantene moy DER ñi nga xamantene formation lañu soxla ñu orienter leen ci structure yu melni 3FPT wala ONFP. actuellement si fuñu tollu état bu caravane bi on est à plus de 300 jeunes qui sont enrôlés enrôlé nañ lu ëpp 300 jeunes. accompagnement financier bi am solo mais li ci gën a am solo accompagnement psychologique bi ndax tey boo seetloo am nañ fi ay experts sociologue ak ay experts psychologues yoo xamante ne ñëw nañ pour waxtaan ak jeunes yi ndax problème bi. dafa nekk loo xamante ne kenn mënu ko expliquer euh, tout le temps am na ay mécanismes yoo xamante ne teg nañ leen fi pour permettre jeunes yi ñu am ay xëy mais tout le temps autorités yi aussi ñu ngi wax mais dañuy gis ne fléau bi dafay gën di intensifié wu moo tax nag ñu ne ci bu ñu ñëwee pour enrôler jeunes yi waaye itam war nañoo ànd ak ñoo xamante ne dañ leen di tàggat ci wàllum psychologie xool lan moo tax ñuy def loolu noonu bu loolu weesoo aussi ñuy invité parents yi à ce ñu dalal seen seen seen doom yi ñu dalal leen bañ leen bañ leen yàkkamti parce que ñu bëri ñi nga xamante ne ñu ngi jël gaal yi di dem pression sociale bi moom moo tax ak li ñuy dégg ci seen biir kër yi moom moo tax kon ñi ngi ñaan waajur yi ñu dimbale seeni njaboot ñu dalal leen xam leen ne toog fi tekk fi mën na nekk